Bravo! gore lay lay da na ball ko mi dañuy jongante faw mu am ko muy jaanu la defante ñu xaste ko doo en jongante foo aaxree la boo ñàkkee foo aaxree la boo gañee foo aaxree la lépp ci foo aaxree la duñ la gaañee waaw boo ko gaañee loxo ca kaw demal demal Begin. suñu mbokki internet di nuyu bu baax a baax di leen ziar tey ñu fi euh, nga xamante mooy Magic Land seet si pour waxtaan amoon ci combat nga xamante ni lañ jëm dimanche dox ci diggante Modou Lo Ama Baldé naka la gisee ñaari mbëri ginnaaw bañ defee seen open press ba pare coach maa ngi nuyu di leen ziar di la bàyyi nga doog di leen baal di ñaan yàlla jàmm yàlla defal ñu ko yàlla yóbbuñ ci combat ci jàmm ñu bëri ko ci jàmm ñu ñibbi si jàmm et que le meilleur gagne. Euh, duñ ko xo bu ñu seetloo fan yii ci ginnaaw euh, Ama Baldé defoon na sorti ak Modou Lô def benn face à face un mois ci ginnaaw bi leen gisee ak tey jii par rapport ak Ama bi nga gis démb ak Modou Lô mu def open press ban est-ce évolution par rapport ak seen bi am na évolution am na séchage am na wàññi tuuti poids am na tuuti def un euh, corps athlétique. Euh, nga xamante ne xam naa ñoom seen combat ñoom ñaar liñ ci bëgg kenn ku nekk stratégie bokkul mais gis nañ ne am na changement ci wàllu entraînement ci wàllu taxawee ak wàllu dayo voilà ba ngay xool ne testé nañ seen bopp seen physique ci wàllu bi ñuy tuus gis naa ne tuus yàgg na jël na temps genre échauffement lañ ko def si hmm, seen shadow box bi gis nañ ne am na am na am na temps boo xamante ne vraiment pour rythme cardiaque yi da nga xam ni dina mën a tenir un combat de quinze à trente minutes. ci combat bi waaw. bu ñëwee ci Modou Lo noo gisee Modou Lo démb bi mu defee open press bi nga ko gisee physiquement. Hmm, un athlète athlétique saillant muscle avec des muscles saillants athlète boo xamante ne boo xoolee ci ñaari côté un combat endurant et euh, nu mu tudd rapide. rapide bi wow ah, rapidité la indi rapidité ak longévité la indi moom laa gis ne démb loolu la indi quoi waaw rapidité ak longévité il est rapide et il tire en longueur waaw. waaw boo xoolee ni mu ni mu bu doon combat bi dana tirer explosivité bi mu indi ak rapidité ak motricité bi mu indi euh, Euh, euh, mobilité bi mu andi da nga xam ne kii dafa bëgg indi combat boo xam ne bu yàggee peut-être dina ko arranger bu yéexee tamit ça lui fera l'affaire waaw bi nga ko physiquement euh, ci forme fan nga ban partie ci yaram nga gis ne ci la gën a liggéey. waa il a travaillé tout mais xam nga moom ñun ay sahéliens lañ mooy li may à chaque fois te am na nit yoo xam ne seen bind moo mel noonu moom peut-être bindam tànk yi noonu la mel wala moo lay xaw na tuuti wala formam noonu mais boo xoolee il a bien travaillé musculairement masse musculaire euh, euh, sec boobu mu indi ba pare am rapidité ak explosivité boobu dang koy gis ci bi muy shadow ci bi muy déplacé wu ak euh, bi muy préparé wu noonu. am na explosivité. waaw gis nañ explosivité ak rapidité bi da nga koy sentir moom waaw. njaxlaf yi njaxlaf da nga koy sentir waaw da nga si gis waaw. côté Ama Baldé noo gisee moom. bon Ama gisoon nañ ko mu am tuuti masse mais xaw na ko wàññi mais taxul mu jeex aussi wàññi na tuuti masse bi am na laf dana am na masse boo xam ne daaw ko am mais masse boo xamante ne mm, dafa war a ànd ak yaramam ànd ak rapidité am ak explosivité am peut-être moom bu fekkee ne daal dal ci kaw waa ji benn yoon un combat prib dip peut-être mën nañu foofu loolu mën na ko arranger mais aussi. ak ni ñu ko gisaatee barki démb gis nañ ne masse bi mu am tamit dina attan xol bi dina attan masse musculaire boobu pour que mu mën a bëre un combat boo xam ne endurant lay doon. waaw même chose même question beeg Modou Lo bi nga ko xoolee ba ban partie ci nga gis ne dara euh, liggéey na ko bu baax a baax. ah surtout le bas le bas le bas le bas du corps on a vu que ses membres inférieurs gën na ko solidifier et il a un peu séché le haut. xaw ma nag xeex la ci bëgg wala tourner mais samp na daal xam naa ne samp na pour daaj. samp na mooy lan. maanaam di waaw root na tànk yi ba mu fees waaw xaw ma ndax day ràmbal dem wala day raam wala day dal ci kaw waaw. waaw lu bi hmm, bu arbitre sifflé. na am lecture bu dee côté amaa la bon favori un peu parce que moom il est outsider wala il est challenger parce que roi des arènes la ak moom su nekk il est challenger bu fekkee ne calcul mu baax na li mu bëgg mu bëgg ko def benn cong boobu nafa fa jeexalee combat bi rungum daje boobu mu dal ci kawam parce que Modou pour nga daan ko il faut nga cadrer ko action réaction action réaction chute. cadrer ko waaw cadrer ko mooy li ma la waxoon ci vidéo bi passé mais bu fekkente ne dafa am benn cong daw action yi yeggul wala action yi duggantewul wala finiru ko bu amul finition rek mën na nekk lu fatal ci moom aussi waaw. léegi bu ñu demoon ba jour combat bi dimanche ñu naan ñu war a xëy ku ci nekk lan nga koy conseillé mu ndékkee ko wala mu aññee ko. day day lekk jël waaw day jël xëy jël jël lu oyof jël lekk boo xamante ne du du niin du du diis diis maanaam du la tayalloo loolu il faut que les diététiciens ñoom war nañ ci mën a am part de responsabilité xam nga jour combat li nga war a lekk loo xam ne digestion bi day gaaw ba pare am ay sucre lent yoo xam ne da lay téye comme lu am ay fruits rouges aussi di jël ay raisins secs jël ay prune yooyu di ko ci boole peut-être le matin banane wala boo demee stade tamit banane dina ci baax yooyu noonu pour waaw mu mën leen a téye di leen dimbali ñu am lu ñu grignoté quoi ba a jël loo xam ne du la du du du la du nekk laxatif laxatif mooy loo xam ne mën na la indil biir buy daw loolu da war a moytu sa jour combat xam ne daf lay def somnifère ngay nelaw loolu lekk yooyu da nga koy moytu komba jour combat lekk yi nga war a lekk ay lekk yu énergisante ba pare lekk yoo xamante ne da dangay dalay may kattan may ay fibre fibre daal war nañ mën a taxaw ba pare jël loo xamante ne ay fruits rouges dina ci baax waaw. fi ba fi ba combat ba ñu gis ne ñu gis ne combat bi 2 jours moo ci des 48 euh, moo ci des boo doon conseillé ci côté côté entraînement ci lan war a def. ci 2 jours yi simulation rek lay nekk fi mu toll nii entraînement simulation la waratoo jàppante yenn contact yu lay indil blessure wala waratoo yëkkati boo xamante ne mën na la indil ay déchirure musculaire wala nga déséquilibre ah articulaire yooyu bu fekkente ne amul il faut coach ci instant équipe technique bi bàyyi ci xel ah euh, li ñu war def explosivité rapidité ah, ay fractionné rek la ñuy liggéey jël benn poids yëkkati ko benn yoon wala ñaari yoon tegaat ko wala téye benn poids am benn résistance musculaire bàyyi ko wala jël sa corde délassement daal. délassement daal délassement si lañ toll. pour muscle bi mën a bañ a endormir ses muscles réveil musculaire waaw délassement la ñuy def réveil musculaire échauffement délassement réveil musculaire. waaw échauffement ak délassement musculaire. waaw mais damay faral dégg combat bi. am na ñu naan dañuy teel yeewu ñu ne dañuy nelaw ba midi ñu soog a yeewu loolu lan ngay wax ci côté ci côté seen ah, bu fekkee ne sa réveil dafa tardé doo am répondant il faut nga teel a yeew def benn délassement tôt le matin teel a yeew mën a dem peut-être fu mel ni géej bu dee am na fi waaw comme secteur bi doxantu ci booru géej gi jël air pur dégg jël un bon petit déjeuner boo xamante ne dina dina la dimbali euh, amaa accompagné de quelques vitamines C accompagne de quelque euh, euh, euh, fibres accompagne de quelques protéines naturelles yooyu da ciy baax xam nga di naan ndox bu bari e boo boo boo boo jógee ci loolu aussi mën a lekk lekk bu boo xamante ne du am du niin comme ni ma la ko waxee quoi du niin te du saf waaw du niin du saf lu épice du ci saf waaw du niin te du saf quoi voilà waaw da ciy baax quoi parce que bu fekkee da nga am remonté mu xër ñeñ ñi la wala mu saf piqué la jàpp sa xol bi nga mel ni genre estomac yooyu su physique physiquement boo taralee nii wala nga kii rek après da lay sonal donc footing bu sew des fois allo yoo wàcc ci biir pendant combat bi voilà looloo koy parce que alimentation journalière boobu ñu def ci jouru combat bi dafa am nu mu impacté wu lekk boobu bu fekkente ne digéré woo ko wala demul fi mu war a dem te du dul luy gaaw a rees wala dafa nekk loo xam ne dafa saf-sap day am lu muy lu muy lu muy lu muy def sa organisme bu yëngu-yëngu bare rek fu mu mënti nekk dafa remonter parce que am na lekk yoo xam ne doo leen boole am na lekk yoo xam ne ñoom dara du leen suuf estomac dañuy diis lépp loo mënti lekk ñoom dañuy wàcc ba na dégg toog beneen lekk boo ñëw soo ko tegu seen kaw donc lekk il faut nga xam yan façon lekk la pour mën a bañ ko teglante wala moom mu jiitu nga jël leneen di ko si teg jël loo xam ne dafa baax lu mel ne ay miel ak ñoom bugguma dugg si détail bari daal waaw mais ñoom waaw dinañ ci am ay experts yoo xam dina leen dimbali le jour ji. kon veille bi ñoom 20 heures war nañu fekk ñu tëdd. non mën nañ bañ a tëdd 20 heures sax pas forcément da nga ba ba récupération bi avant la woon pendant la préparation. du a deux jours ah. day fekk li ngay wax ni ñu pare ba lépp nekk fi def li nga war a def relax parce que nit doo ko ne nelawal par force te gëmmantuwu la voilà ba pare bañ a stressé wu hmm? waaw bañ a lekk loo xam ne day piqué piquant trop. waaw bañ a lekk lu piquant waaw heure bu saa yoo sentir na pare nañ def étirement bu baax mën a dem tëddi nelaw waaw léegi bu jógee ci loolu ñëw ci euh, biir biir stade bi ñaari bëri dugg bi li ñuy wax gestion gestion d'énergie ñoom seen énergie naka lañ ko war a gérer ba nga xamante ni du am impact wala bu dee am impact tamit impact positif lay ci biir combat impact positif yi mooy bu ñu teelee ñëw ñu bañ fa nekk di def comme ni yeneen mbër teelee ñëw stade doo am foo relaxé mais bu dee xëy nga ndekki seen ndekki bu normal bu am ay glucides am ay lipides am ay vitamine C am ay énergie boo añee loo xamante ni dina la téye bu ñu dem stade ba mooy li ma wax yóbbaale seen fruits rouges ak lu leen di may ndox comme am na banaan am na magnésium potassium calcium yooyu noonu am nga jëlaale loo xamante ne comme ay raisin ay prune abrico pêche yooyu di leen dimbali ay du miel affaire yooyu noonu mu mën leen dimbali ñu mën mën leen a téye léegi bu fekkee foofu nag euh, dem ñëw bi échauffement lay doon boo teelee dugg ci combat bi deuxième souffle bi mën a teel a ñëw boo ko appelé mais parce que boo vidéo ba mu jeex bu sa deuxième souffle ñëwee nga bëree ko premier round deuxième round bu ñëwee da ngay sonn bu fekkente ne nag gérer nga sa sa condition gere nga sa timing autant excuse moi ba nga ñëw ci ba échauffement bi xanaa moo tuus rek échauffement la énergie la loolu mën na permettre mbër mais tous bi bu ñu paree warul romb lu ëpp une heure de temps avant ñu bëri dafa mel ni équipe nationale buy jouer une heure avant le match équipe bi dañuy génn échauffé wu. tate la terrain parce que une heure trente avant le match dinañ ñëw tate pelouse bi xool terrain bi nu mu mel xool seen dàll yi ndax adéquat na xool ndax gazon bi taay nañ ko wala arrosé nañ ko léegi trente minutes yooyu bu weesoo dañuy sol équipement ñëw dugg terrain bi commencé échauffé wu échauffement bi ñëw après demaat quinze vingt minutes sol équipement mën na ñëw dem ci coup fois donc c' est la même chose que sport de combat yow il faut nga garder sa sa sa di nga am fraîcheur mais il faut nga garder muscle yoo du sedd sedd boobu bu ma nee mooy nga nekk ci. am maintenir quoi musculaire maintenir ko. léegi bu fekkee da nga war a dem nag euh, euh, euh, pour kii yow sa yaram da koy nekk en activité waaw parce que waruñ topp di di di kii première des choses mooy def mooy échauffement pas étirement ñu échauffé wu ba pare. échauffé wu avant parce que muscle bu seddee nga ñëw rek étiré ko mën na indi ay ay problème blessure déchirure musculaire mën na la indil problème articulaire parce que doo ñëw rek étiré wu. étirement da nga koy waaj étirement est différent d'échauffement léegi à la fin comme sport boo paree foofu la étirement gën a baaxee que début étirement est mieux et plus bon et plus rentable à la fin de la séance qu'au début de la séance donc période boobu ñu mën a garder seen muscle en. en fonctionnalité di dem di ñëw gérer seen énergie bañ ko jeexal bañ a topp yenn affaires yi concentration nag foofu stress baaxu fa rester dans ta bulle comme on di sa zone de confort yow doo ko génn tu restes dans ta bulle parce que c'est un combat bañ emporté wu c'est un combat euh, nan lañ koy waxee du du du sport collectif sport individuel la di nga entraîné ba dara ba ñëw ci biir géew bi foofu am na loo xam ne ay calcul foofu sax xam-xam ak faay bi nga gis wala ndax est-ce que xam nga mbër bi ngeen daje da ngeen ne kii sonn na bàyyil ma jeexal combat bi wala i kii ma yëkkati dafa diis bàyyil ma jéem ko mbas wala kii poids bi am arrangé wu ma bàyyil ma bëtt génn wala instant bi bàyyil ma tiré combat bi en longeur bàyyil ma yóbbu ko à l'usure waaw bu fekkee ne usure bi arrangé wu ma ma jaay ko doole benn yoon rek mu jeex possibilité yu mën am ci làmb ji la. ñoom ñaar ñoo koy xam bu ñu jàppante non technicien yi mën nañ ko gis ni avant la lutte mais jour combat bu ñu jàppante bi looloo tax entraîneur buy toog ci ci ci peggu mbër bi kii toog ci banc bi war na nekk ku bari xam-xam koo xamante ne su ñu demee premier deuxième round waa ji tànk bi mu la tegal ndax daf ko échanger wala mu ngi lay tànn piège moom bu amee gis-gis. lecture lecture bu baax de jeu war na la mën a woo wax la booleeg li nga am yow nga xam ne parce que am noo xam ne boo fa tolloo sa jom mais xam-xam ñu lay jox ak ki lay rectifier moo la mën a dimbali ci voilà te loolu il faut mbëri di ci bàyyi xel. waaw di xool mais jël benn coach Moussa rek ñoo teg ko xamul dara ci làmb mu bëgg coach ni kii xamul faay gis na ni mbër bi loxom bi wàcc na ku mën a dugg foofu wala mënatul léewtoo ci kaw wala léewtoo bi mi ngi ci sikkim bi wala léewtoo toog dafa dafa kawe kanamu visage bi garde bi day wàcc bu fekkee ne mbër bi boxeur la da lay dugal da lay appel droite ñam la gauche wala mu laal la benn direct droite uppercut gauche. te loolu euh, entraîneur bi daf ko war a daf ko war a observer bu mi-temps amee mu woo la rectifier la ci par rapport si si mi-temps amee wala arrêt am mu mu wax la wax la ci wax yow mais ndox mi ñu xëppoo est dina am seen seen il faut éviter yooyu parce que di taw di tàng di sotte ko ndox bu sedd sa poor yi ubbeeku ay soow lépp waaw mais mën na dimba da ngay gis ku sotte ko soow fii ba 19 heures day day continuer di niin parce que diw bi wala dax bi day des yaramam tant que mu ngi ñaq te quand tu transpires da nga da nga da nga da ay sels minéraux buy génn sa ñaq bi moo tax boo laalee ñaq mu saf xorom benn lu xaw a niin loolu lay la donc tant que yaa boo sottee ko woon sow moo tax arbitre des fois bu ñu leen laalee ñu leen wala ñu mu dañ mais am na ñaq yoo xam ne yow ne kii bu continuer loo a ñaq rek yaram bi day gën a di tax day continuer parce que loolu dañuy bañ ku leen téye voilà duñ leen di gis ñu sottee ko sow wala boog bariwul kon dina am début bi si bi ci seen tuus yi nañ sotteeku soow boo après nag seen combat ñoom kii bu dee dafa indi combat boo xam ne éclair la jàppante mu jeex wala keneen ki indi combat boo xam ne ça va ça en longueur moom dafa bëgg combat boo xamante ne coffre day vidé loolu lépp mën na ci am ci ñaari côté mbër yëpp quoi xam nga analyse dafa metti da ngay analyse wala dara ñu ne waa ji dafa far te ñun amatuñ droit far faratuñ fenn dañuy wax ak sunu aqulaay taalaa rek objectivement la ñu waxee te dañuy wax li nga xam ne moom lañ gis quoi waxuñ nag li ñu wax mooy am ñu gis à peu près li ñuy li kii rek moom moom lañu moom la ñuy nattee quoi. te dañu mujjee ci benn question nag peut xaw na roog bi ba ma laaj léegi te fekk da nekk ci euh, côté Ama wala côté Modou Lo nga war ko jur combat bi suba bi ba ci ba ba ci ngoon gi ci ban ban panang koo tegal boo xamante ni moo koy permettre ba bi sifflé li mu a soxla ci yaramam bu ko laaj yaramam mu jox ko ko ci côté énergie ak ci côté euh, moral. non c'est moral bi mooy mu rester dans sa bulle comme ni mu la waxee rester zen am la la la confiance en soi. Euh, euh, joie de vivre mu am ko concentration bañ a stressé wu mais mu lekk li nga xam ne ci lekk yi nga xam ne mën nga koo lekk ci ni ma la ko expliqué jour boobu lu koy lu koy lu koy jox énergie ak lu koy jox résistance xam nga parce que am na lekk yoo xam ne boo ko fi lekkee sawaay bu ñu la dóoree ci fàmb di nga ko wàccu de bëgg jël yaasa ginaar gu neex wala ceebu jën bu fàtta taraj lekk ci bay bëgg a dee nga ñëw taxaw ne da ngay léewtoo bul sonn bu diw bi wëlbati rek day yëpp mën na am wala nga lekk fi yenn vitamines yi yoo xamante ne dafa am laxatif mën nga nekk ci stade bi benn instant di daw tàngoor bi ngay jàpp la mu def la jaare yooyu yëpp am mën na nekk côté mystique nag mais côté scientifiquement parlant ci wàllu lekk yooyu mën na am léegi seen entourage ñoom xam nañ am na xam ne bëgg nañ ay cere ñi bëgg nañ ay lu jëm ci wàllu féculent bëgg nañ ci ay ay sucre lent bëgg nañ ay ay loo xam ne ay ay waaw waaw yooyu noonu baax na ay ay yoo xam ne ay vitamine C ay chocolat am loo xamante ne comme ni mu waxee ay fruits rouges boole ci ak pepp yi nii ñuy waxee céréales yeeg yooyu noonu waaw wala wala waaw wala wala yenn lekk yi nga xam ne dañ koy gaaw a digérer te du waaw waaw yooyu noonu am na solo waaw. takkaay nag lu ñu gis ñu takk seen loxo yi des fois ay ay ay gàllaaj bon na nekk élastique. parce que boo takkee sa muscle bi fekkante ne ci kaw musculairement muscle looy gën a léewtoo bu yàggee dafay chargé c'est la musculation à long terme c'est l'endurance c'est le fait de faire longtemps sans se fatiguer donc muscle instant boobu mu ngi chargé bu veine yi bu jëlee boobu nag circulation sanguine day am problème soo ko takkee bu damatul mën na la indil nga xëm wala nga fàtt parce que sang bi day tourner rek flèche bi nii lay def si yaramu nit ki day tourner nii lay demee day tourner di wàcc donc bu fekkee danga takk foo xam ne takk bi dafa serré circulation amul bu bu bu sang bi baree benn côté rek da ngay gis mu indi miir wala nit ku daanu moo tax nit bu xamee daanu les premiers gestes pour sauver nit ki lépp loo xam ne dafa serré da nga koy tekki ceinture gàllaaj bu solee dàll yu serré nga tekki ko desserré délancé délancé lancé yi dindi ceinture bi simmi kawas yi mu am féex donc ñoom bu ñu demee ba war a bëre boo xoolee mbër yu bari a la à la ak mbër yu mag mujj gi élastique la ñuy takkee seen gàllaaj yi boo xëccee day ñëw parce que élastique boobu du du du serré nekkul buum buy serré serré élasticité boobu day day boo xëccee rek da lay topp voilà. loolu su bëggoon doon doon loo xam ne ko ci par rapport ak Modou Lô Ama Baldé ñoom ñaar ñu respectante ku nekk respecté sa moroom bañ a xeeb sa morom kii bañ yaakaar ne moo ëpp doole moromam ñaari yoon beneen bi si topp mooy bañ indi combat d'humiliation parce que nit boo ko bëggee da nga koy humilier rek mën nga juum mën nga fa dóor dóor boo xam ne da ngay luppe mu mbasa nga daanu wala nga dóor dóor boo xam ne du dal wala mu utiliser sa pois yow daan la si donc si lucidité day am ci combat bi respect day am ci combat bi observation day am ci combat bi et calme olympien day am ci combat bi le calme olympien est plus primordial dans ce combat parce que ñaari xar lañ magantew ñu lu bari seen doole sayaana instant bi macha allah laf cat ci ñoom mais il faut nga am benn calme olympien foo war a attaqué attaqué foo war a baare baare foo war a duggee dugg boo waree dóor dóor te bu fekkee dafa war a continuer continuer action bi mu jeex bu fekkee da nga war a xaar nga xaar mu ñëw mais boo juumee ci attaque wala nga juum ci dóor rek mën na fatal ci kenn ko. lu waaj def combat bi dafa a wóor. bu dee wóor xat bu dee mën nga tirer yaakaar nga ne combat boo ko ci en longueur bu ah na nga fexe ne am nga coffre bu dee combat 15. benn mi-temps wala mi-temps ak genn wàll wala deux mi-temps bu fekkente ne combat bi prix dib la yow indil doole boo xam ne boo ne tël dal ci kaw waa ji boo jàppee rek paquet yi mu yegg suuf waaw. est-ce que tey Modou Lô Ama Baldé ñoom seen bopp ku leen laajoon combat bi wala day gaaw ñoom est-ce ko est-ce que xam nañ xam nañ. ku si nekk am nga looy indi ku si nekk am nga xool action yi ni muy demee. ci loolu la ñuy sukkandiku ci round d'observation bi la ñuy xoolee kii xaar ki daan xaar day xaar ki daan song day song mais ça dépend round d' observation bi xam nga mbër di nga ñëw ba jour combat mu ñëw yàq bëre bi ñaar nit day bëre am na ñoo xam yoo xam ne su la neexee dañuy match nul am ah ça dépend nag lan lay indi jour boobu on sait jamais combat dafay njuyaate daal mën nañ bi oh, combat bi fii la mujjee xoolal ñii li ñu def ñi ngi bare mais mën nañ nekk di calcul lu nekk mën am waxuma ne loolu mooy am mais làmb la daal lamb la dafa nekk turam rek. waaw dañuy lambatu rek ba daj. ki daj rek après jeexal ko. macha allah am na solo ko la jaajëfal di bàyyi nga tàggoo. waaw mais borom jumaa ji maa ngi lay ak borom Touba maa ngi lay ak màggal rek waaw comme ni ma ko ne di bëggee internetu 4 appuis TV yëpp aussi di ñaanalaat euh, jàmm Sénégal yàlla nañu yàlla defal jàmm ñu bëggante yërëmante suturaalante xam ne li sport la rek sport dafay fédéré sport dafay boole te nit ñi nañuy nañuy nañuy bàyyi yàqante bi Euh, ñu gën a gën a gën a yéenante jàmm gën a ñaanante jàmm parce que Ama doomu Sénégal la Modou doomu Sénégal la ñu Sénégal rek la ñu am te bu ñu xamee ne ndam li du du génn Sénégal Pikine nag parcelle benn la parce que lu ñaaw bu fa amee rek kenn ku si nekk di nga dem seet sa morom bu dee safal la nga jaale ko wala bu dee dara la nga seeti ko voilà pour gën nekk ay xarit te ñoom ñooy mayante xaalis donc nañ ciy bàyyi xel wax ji mën na dëgër mën na tendre ne mais bu mu ñaaw. bu jeexee nañ ko fi yamale bu jeexee rek waaw bu mu ñaaw mu ñaaw quoi lu ñaaw baaxul àdduna missionnaire lañ dañ ci jaar rek dem waaw parce que nit ki bu ëllëgee sa nawle jógee fi nga war ko seede ci bés bu bés bés bu muy dugg ci këru dëggam nga war ko seede loo koy waxal boo ko deful lu ñaaw wala waxul lu ñaaw intérieurement war nga am kersa donc nañuy éviter yooyu nañuy waxante lu rafet ko parce que bu ñu fi jugee moo tax. macha allah message bu ama am solo yaakaar naa ñi suivre kat ab yëpp ñu ngi dégg Ama Baldé Modou Lô ku nekk tey mérité na daan moroom ku ci daan tamit jàpp nekkul mën mais yàlla moo la jàppale rek ndax ku ci nekk liggéey na tamit gox ba nga dëkk génn na jàppale la bu baax a baax ñu ñaan yàlla mu yóbbu ñu si ak jàmm dimanche ku jox ku ko waxee couture ku ci yàlla jox ndam xam ne moom la ko jox génnul Sénégal lépp lamb sport national la di leen jaajëfal bu baax a baax di suivre ñëpp ñu di sant ñëpp ñu suivre 4appuis surtout diaspora bi di leen dig daje ñoom beneen invité ci waxtaanu lamb